asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 28 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey dooreeti ko yëglikaay ba nag tey comme ñu xëy woon ci xatam mu njëkk mooy tafaatin borom bawol borom taq ci rib tafaa nag mu nga xëy taxaw ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb yëglikaay ba nag te la tax mu xëy ci tafaatin daal dugg ya nga xam ne ni tafaatin dugg na ko pikin ci bi nga xam ne moo di sunu làmb xëy tey andil ñu ci ay leeral ña ko fa daan ak ña nga xam ne nii tafaatin daan na leen fa nga xam ne nii moom moo di pikin ibakan moo xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag ki nga xam ne nii moom moo di jàppal maalaw seeraas booy sëy ceg ñii ñëpp tafaatin daan na leen Ama Baldé moo ko fa daan maanaam kon boo bëggee dégg-dëgg tafaa dugg na Pikine ñeenti yoon am fa ñetti ndam ak benn defet bii mooy juróomeelu yoonam digganteem ak booy Niang muy dem Pikine yëglikaay bi moo xëy tey ñëw laaj ñu lu mel ni ki wala boog andil ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal dugg ya ma doon dugg Pikine moom ka soo fa benn honneur ba du kenn ko dul Ama Baldé bii yoon nag mooy juróomeelu yoon ba ki nga xam ne nii moom moo di tafaatin war a dugg Pikine bu nu fa ba tey dañuy continuer ci bi nga xam ne nii moom moom moo di sunu lamb ci xëtam mu njëkk ñëw na ci ñaar ñoo xam ne nii moom foo ñu dugg nar naa metti ci ñoom muy Gris Bordeaux maanaam Gris mu ndaw mi wala boo Gris mu mag ma ak mu ndaw ma ñoom ñaar daal géejawaay la ñu duggati Gris Bordeaux ca Balla Gaye numéro 2 la maanaam combat ramas ja di Gris 2 jël nga xam ne moo doon Abdou Diouf ma nga xam ne daanoon na mag ja di Gris Bordeaux mu mag ma moo tax yëglikaay bi ñëw tey ci ñoom ñaar maanaam daal seen avenir moom fi mu nekk nii fan koy joué du fenn fudul fa nga xam ne moo di ca géejawaay mu mel ni ki géejawaay googa nag seen mbër ma nga xam ne moo di guy gi soo bëggee dégg dég daal coow la nga xam ne doxoon na ci digganteem ak waa GFM wala boog wax ja bari woon ci digganteem combat am ak rëg-rëg daa mel ni kii nag combat ba ka nga xam ne moo di Malick Gakou ñëw na nag dal di daal fay coow la fexe ba guy gi nangu 35 millions ya mbir ma nag laaj ba mooy fi mu nekk nii lan moo tax waa GFM taxaw boobu ba tey di xaar bañ a finaliser combat ba comme que guy gi Malick Gakou wax na ba mu nangoo jël xaalis ba dal di bëre sunu làmb xëy tey ñëw sampal moom jàppal mooy combat royal bi war a dox ci diggante ni ki fi mu nekk nii daal soo bëggee dégg-dëgg ba tey daal Luc Nicolaï mën a génn ci kaso bi ngir tëggu ko ndax nag ba tey combat ba sénégalais yaa ngi koy continuer di ko bëgg keneen koo xam ne nii moom jàppal mooy ki nga xam ne moo di kéwél moom fi mu nekk nii day ay jafe-jafeem ca la yëg kaay bi xëy tey ñëw moom sunu làmb ndax defet ba mu jëlee ci móot ja ñu la déet ne waay mu jógewaat ca ñëw am benn match si nil digganteem ak ka nga xam ne moo di sunjata bu jàmm kën wala bu bës ko soow mu mel ni ko kon moom daal kéwél résultat yoo xam ne baaxul daal moo ko sonal fi mu nekk nii keneen koo xam ne nii moom tamit jàppal li ko war a sonal mooy fexe am ndam mooy ko Sim mi nga xam ne Serigne Ndiaye numéro de la war a bëreel Soko Sim école Balla gay soo bëggee dégg dëgg moom daal fi mu nekk nii ndam forcé moom la war am ndax nag toog na lu yàgg loo xam ne nii gisut ndam boole ko kay anne balance yëg li bi ñëw na ci moom ak neuf victoire am ak trois défaite am moom Soko Sim ma nekk école Balla Gaye yëg bi ba tey bu ci continuer yëg bi ñëw na tey nga xam ne moo di tim timool moom itam fi mu nekk nii day depuis 2016 daa mel ni ki daal combat gisu ko ak ay bët moo tax fi mu nekk nii daal ah mu ngi xaar promoteur yi wala mu nga bëgg boog ku ko dimbali ngir mu am combat leneen loo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii moom bu dee dimbal dañ koy wax ñoom daa mel ni def nañu te yàlla tax ñoom ñooñu ñooy waa ëttu làmb ji nekk nag ci diaspora bi di ay sénégalais yoo xam ne daal bitim réew la ñuy dund boo bëggee dégg-dëgg daal la ñu def te muy lu baax mooy six cent mille francs la ñu dajale jàppale ko ñi nga xam ne dañoo nekk ci làmb ji te wéradi jàppale yëglikaay bi nee na famille bi nga xam ne ñoom ñooy famille Sil Balde ndemtu yàlla siñor sa Sil Balde siñor boog ndemtu yàlla sa wuy ji boromam bu yàggul jàppul jox nañ leen cent cinquante mille jibi ama mi nga xam ne dafa tëdd feebar moom itam jox nañ ko cent quinze mille booy bambara mi nga xam ne moom moo dëkk Grand Dakar jox nañ ko ko Balla Gaye bu Géejawaay soixante moom tamit jox nañ ko ko Mamadou Diop di kase an dëkk ca Mbuur moom tamit te tëdd feebar jox nañ ko mel ni ki daal waa ëttu làmb ji moom fa nu génn boobu yoon daa mel ni nooy na nepp buñ fa jógee dañuy continuer dem Leewtoo point net Sénégal te waras na caa bàyyi xel muy combat bu nar a neex dox ci diggante ki nga xam ne nii moom moo di Adama Diouf Mamandis ak wulli bu bawal combat ba nag taxawal nañ ko loolu la ñu Leewtoo point xëy xamal keneen koo xam ne ni moom am na mbër mu mu jël bëgg koo taxawal mooy jibal Touré ma ca Gàmbi moom daal ka mu teg loxo du kenn ku dul xoyantaan bu Gàmbi daal lay waral adversaire fi mu nekk nii ginnaaw ba mu waxee ak moom ba déggoo ak moom maanaam daal ca Gàmbi la ko bëgg a tëggalee ab combat nee nag moo xam Sénégal la wala muy Gàmbi mbër mu mu am nga ñeme xoyantaan daal dana la boole ak moom ngeen defante jibal Touré mu Gàmbi moo bëgg a def loola ca Gàmbi yaa Leewtoo point net moo xëy xamal nu ko bu ñu demee ca Ligue TV tamit lan fay fekk wala kan fay fekk mooy Sa Thiès ak ki Balla moom nag moom Garga Mbossé la xëy attaqué Garga daal Sa dal na ci koom daa mel ni moom naru koo may dara wala fu mu yekkee ak nàkkam defanteeg moom ba mu saf sap loolu la Garga Mbossé fas yéenee wala boog loolu la Sa Thiès fas yéenee def mel ni kon fa mu 2019 lam nay fàttali mooy diggante combat Modou Lo ak Eumeu Sène combat royal ba fi amoon atum daaw mu mel ni ki tey ji la am at record moo xëy ñëw andil ñu ki lu mel ni ki lool Modou Lo na mun nangoo roi des arènes ba ak staff ba ku mel ni ki Serigne Ndiaye mu ngay wax ma yor wàllu mystique ba moom daal nee na li waral bés boobu moom Serigne Ndiaye mu génnee rongo ñam Ibulaay turi rongo ñam Papis tamit daal di yéeyu jooy Serigne Ndiaye ñëw na ci la ko waral loon xanaa kay bisu mbégte la woon mel ni kii nag Modou Lo moom bés booba ci la tee la nga xam ne moo di roi des ba Malick Ngom ma nga xam ne nag moom la tuddee jàppal lom bi nga xam ne moom mooy homme du combat daal ñëw na ca tamit fa mu jaar kër ci bés booba ak lu rëy lam ca def sofe nga nga xam ne sofe na ko ëmma seen ci dóor ba nga xam ne mu dóor na ko mu tëdd ca suuf te leneen mënoon caa am record tey moo xëy di fàttaliku bés bu mel ni ki noonu ñeneen ñii moom seen combat daa taxaw muy nekku réll ak ki nga xam ne nii moom moo di marle marle nag mu nga xëy di dànkaafu nekku réll moom daal mu ngi koy dànkaafu parce que marle jàpp na ne moom lenn du ko yóbbu waa géejawaay lu dul victoire nee na bu yeboo moom na ko nekku réll teel a dégg teel koo xam mokki mbokkam ak ña ko encadré ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record ki nga xam ne nii moom moo di Malick gàkku yëglikaay bi ñëw na ci fi mu jaar ba décanté situation bi amoon ci diggante guy gi ak waa GFM ba guy gi nangoo jël avance ba dal di bëre waaye yàggamaar fa may dellu mooy fenn waa ëttu làmb ji lanu def jar naa wax ndax nag olof a ko wax ku bokk ci gétti gi naan ci meew mi ñoom ay amateur lañ yàgg maar nekk ca diaspora ba dajale seenub xaalis ba mu mat soixante wala boog ba mu mat six cent mille francs maanaam téeméer junni ak ñaar fukk dajale ko séddale ko ñoo xam ne nii yeyoon nañu ko mu mel ni ki maar boo demee bay def wala ngay dimbalee dana baax lool nga dimbali ki nga xam ne yeyoon na ko waaye booy may nag mayal ki la neex waaye ndénkaane moom ka nga wóolu dong nga war a mën a dénk yàgg maar mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloo si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar di internet yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si ñoom. yàgg maa doo ko nuyu tey. yàgg maa ngi koy nuyu kay yàgg mu Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou maa ngi koy bégg borom di welteekaat. te jaas la def jaas la la di. Ah. <laughs> yàgg da ngay jàpp ne da ngay jàpp ne yàgg góor yàlla la nag. ah góor yàlla am jabar yàgg du Youssou Ndour noonu na como como. góor yàlla am jabar ba léegi como di nii rek di kañang kañangi rek. non soxna yàlla ah. koy tudd rek. ak nga boo ak ko. ok moo dafa sabablu ah da nga cay ne. <laughs> ko ak surlaam surlaam dafa xëy nag ak ki nga xam ne mooy borom takk sirib tafaati nee na ginnaaw bu mu bëree ak ki nga xam ne muy mooy euh, booy ñaa Euh, Malo Seras booy Sey Cek Ama Balde Tapha Tine nag mu ngi jëm nag si cinquième euh, mbër adversaire boo xam ne waa Pikine waa Pikine la. waa ndey kuma maanaam daal su ma déggee li Iba wax mooy ki nga xam mooy Tapha Tine bi mooy juróomi yoonam fois bi muy nar a dugg Pikine. waaw maanaam juróomi yoonam dugg na fa ñeenti yoon yoo xam ne ni am na ñetti ndam parce que boo xoolee bi mu fay njëkk a dugg Malo daan ko. Mm. bëre ak Boy Sey Esar Iba ci gazon ba keroog daan ko même cekit mu bëri ak moom Demba Diop daan ko mm. ci la ko Ama Baldé estopé nag mu war a jëmaat ci booy Niang mel ni kon moom fi mu nekk nii ah moog waa Pikine daal daa mel ni histoire ba jeexagul. Mm. parce que daa mel ni génn gu fa ba xam nag ndax bii yoon la ko fa Ama defoon muy defet ba mu fa mujjee jëli te mu metti woon trop ci moom ndax Boy Niang da koy dàbbali wala du ko dàbbali loolu dañuy yónni yàgg rek. bàyyi ñaan yàlla combat bi ñëw ak jàmm ñu seetaan waaye xam naa daal tafaati nag waa Pikine ndàmbi ni moom jeex defagu ko. man eh, yàgg ngay yónni xanaa di yàgg bi taxaw suñu kanam. waaw yàgg olof a ko wax olof nee na nañu yónni yàgg maanaam bu ñu laa nañu yónni yàgg nañ xaar fa ren ba déwén rek incha allahu ah, fekkee ki taxaw kanam de moom du dóorul fayewul nu ñëw nag ak ki nga xam ne mooy eh, Modou Lo Ama hmm. Baldé nee nañu nag Luc Nicolas Euh, est-ce que dina mën a euh, génn ci fi mu nekk bu mën a taxawal combat bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar maanaam la combat ki fait saliver maanaam daal ba léegi gars yi nañ koy coow. man day saa yu ma jullee maa ngi koy ñaanal yàlla mu génn fa mu képp ku fa ne te mérito ko parce que li tax mooy ni ko Nicolaï dafa bokk ci ñun te encore une fois rek olof a ko wax ah euh, Luc maanaam dafa nekk ki nga man dafa am loo xam ne kumba man damay ñaan yàlla ñi ma yàlla di booleel ci milieu bi ma nekk wala ci àddina sax laay wax. damay bëgg sama digganteek ñoom ma di ko sàmm te yàlla tax te lig dañoo am relation bu mel noonu wax dëgg yàlla ma dem këram xam nga muy tëgg ay journée am di ma ci responsabiliser te yooyu yëpp xëy na bu ko neexoon du ko def comme ni ko yeneen promoteurs yi defee kon tey su nekkee ci xat-xat boobu defe naa ne ñëpp ba man damay ñaan yàlla mu jóge fa te itam bëri na ñoo xam ne ñu ngi ko koy ñaanal yàlla na ko yàlla génn ci fa mu dugg ba mën a ñëw taxawal combat bi nga xam ne nii mooy Ama ak Modou Lo ñu mën ko bëre parce que combat la bu nga xam ne noonu ñu la ko waxee rek amateurs yi dañ ko soxla te dañ ko réclamer de A à ba yàlla def moom mu taxawal ko. waaw journal bi tam mi ngi wax ne que euh, Balla Gaye euh, ak ki nga xam ne mooy rakkam euh, muy Gris de ni ngi joué daal seen avenir kenn ki moom war a bëre ak Balla Gaye de keneen ki nag war a bëre ak ki nga xam ne mooy Abdou Diouf. waaw ñoom it de géejawaay la dem dugg ñoom bi yoon fa la ñu delluwaat sax ndax yaakaar naa Gris Bordeaux moomu dugg na géejawaay ay yoon bëri na fa ak Abdou ñàkk bëriwaat fa ak Balla Gaye ñàkk par décision arbitrale a par ay avertissement Gris tamit dugg na fa parce que ay duggaatam la parce que euh, ku na xam ne ne booy remarque mbëru école Balla ak moom daan ko tey mu war a bëriwaat mel ni kon ñoom tamit seen diggante actuellement daal seen siitu carrière tey géejawaay la basé parce que Gris Bordeaux Balla Gaye ku ne xam na ne bii yoon combat bi du yomb ndax dégg nañ fi Gris Bordeaux mu génne bii yoon maanaam dóor mu daanu la koy maanaam daal da koy duma te xam naa ne Balla Gaye numéro 2 moom dinaa ko duma ah dina métti da xam naa ne xaw ma nag fu ñu mujj ñoom ñaar Gris ak Abdou nag Gris 2 ak ba tey ramasse la parce que li tax mooy Abdou Diouf fa daanoon Gris Bordeaux mu mujj waa la ko seqaloon muy digganteem ak Forza te dafay ñàkkoon combat kon est-ce que dugaat bi mu fay dugaat dina bëgg daanu journal bi nag euh, ba des euh, ba tey sunu laam ni ngi xamal ne ginnaaw nag bi nga xam ne Malick Gakou dox na tànk jàmm diggante Lamine Samba ak ki nga xam ne mooy guy gi finalement guy gi nag na jël 35 million yi nga xam ni moom la mujjee bëree ak Siteu pour bëree ki nga xam ne mooy Reug Reug nee ñu nag mi ngi journal mi ngi expliqué lan moo tax ba léegi Sénégal entertainment taxawal gul combat maanaam joxegul avancé waaw fi mu nekk nii day comme coow li bëri na ci komba bi guy gi dafa ragal Reug Reug ñi ne ragalu ko coow li jàpp gauche à droite ba tax na nag bi coow li amee ku mel ni Malick Gakou ñu koy nuyu en passage mu ñëw dox ci rôlu saas rôlu kilifa diggante bi ba guy gi nangu combat bi ci 35 millions comme ni ko yëglekaay bi waxee ci ku doon réclamer 40 defe naa kon nag actuellement ah ko yore mooy waa CFM Entertainment actuellement kon defe naa est-ce que xaar warat naa am parce que comme bëggoon nañ combat bi te proposé woon nañ loolu mbër mi bañ ko ah ba mu andi woon fi ay wax kon defe naa nag li ci des mooy ñu dem taxawal combat bi rek ndey kumba mhm. suñ jógee nag si sunu laam nañ dem si Leewtoo point net foofu nag nañuy jàll euh, jël euh, bagg farafeñi bi dem ba Gàmbi bi <laughs> nga xam ne mooy xoyantaan copain wu euh, ki nga xam ne mooy Baye Mayoon Euh, moom nag euh, amal nañ ko combat mais amal nañ ko signé na contrat ak benn promoteur mais nag des na nag adversaire Babacar. waaw promoteur bu ñuy wax Jibal Touré moom xoyantaan nee nañ moom la signé contrat ci li ñu Leewtoo point xamal am ah, mel ni ki nag maanaam kon Jibal adversaire la ko bëggal. ci entre Sénégal ba Gambie ñu ci profité di nuyu waa Gambie yëpp fu ci doomu Gambia nekk rek ñoom paate Gambia xam nga gaa yëpp. ah xarañ bu Gambia ñoom ñëpp di ay soppe di ñu suivre bu baax a baax di bàyyi xel li ñuy def ñu ngi leen di béggee xam nga di mënunoo tamit tudd Gambia te nuyuñ jamaïcain parce que suñu demu Gambie ci moom la jaare woon ñu koy nuyu di nuyu ki nga xam ne moom mooy Xadijatu Sow borom White House di nuyu képp kuy doomu Gambien rek ak foo mën a parce que li may wax rek Sénégambia xam nga bi la mais xoyantaan daal kon mbër mu bëgg a lekk avance am moom jàppal ne utal nañ ko ba na signé na contrat kon adversaire lay la nar waaw ah ça dépend ci promoteur bi rek moom bu fekkente ne Gambie la choisir wala Sénégal loolu lépp waxtaan ba déggoo la rek parce que Gambie ak Sénégal moom benn réew la rek. Ah, ah, waaw des tamit toujours ci Leewtoo point net foofu Pape Sarr tamit na xam ne moom moo di. Euh, waaja wulli jëm <laughs> gis nañ leen ca Lutte TV waaw dina neex trop waaye li ma la mën a xamal mooy aadama jouf noonu muy wax mel ni kuy joué théâtre <laughs> ah, maa xam nga ne daa mën a bëre ah weddi laaj ku mujjee bëre woon. <laughs> wallaahi lazim ay caaxaan da moom théâtre wul de day bëre day bëre wulli nag mbër la mi nga xam ne nii am na fit ñeme na mën naa bëre mën naa xeex mm. waaye dafa am loo xam ne ci làmb dafa am ñaar yoo xam ne mënta ànd mm. i foog nga bàyyi leen li def lenn li su bëggee daan Adama Diouf ku ko wax lu dul mu dem liggéey yaa ngi koy nax Adama Diouf ay caaxaan daanu ko mm. parce que mbëru tournoi la mbër muy bëreel mm-hmm. mbër mu mën a bëreel voilà waaw de màggat yi lan ku màggat bàyyi làmb <laughs> waaw Babacar nag suñu jógee nag si Leewtoo point nag dañu dem si record si xalima Abou nur nee ñu nag euh, ñu ngi fàttaliku tey lu def at bu Modou Lo nekkee roi des arènes moom na dafa mel semaine bi neex na de ah ji am na doom góor euh, nekkaat mi ngi fête tamit anniversaire bu mu xam ne moom la nekkee roi nee ñu nag jour boobu nag neexoon na trop trop trop si staff bi ñoom nag ñoom la ñoo sax di wax ki nga xam ne mooy Serigne muy préparateur mystique ki euh, nga xam ne mooy Modou Lo ñëw na si tamit ak ay jooyam ki nga xam tamit moom mooy Malick Ngom arbitre ba tamit sauvé woon ki nga xam ni mooy Eumeu Sène bu ko Modou Lô dooree kaw tamit ñoom tamit wax na tamit si journée boobu daal. waaw dañ naan macha allah rek parce que loolu lépp xam nga yàlla la rek yàlla ni muy lay tege ay naqar noonu lay teg tegele noonu la lay indile ay mbégte ndax bu buñ nee buñ ko bés bii. di le 28 juillet bi nga xam ne ci la gañoon couronne roi des arènes bi defe naa ne lu ko jiitu balaa muy egsi foofu amoon na defet bu metti ci moom ci bu rëy la woon parce que kera combat ndey kumba Fall euh, làmb ju doy waar Eumeu ak Modou parce que combat bi ci li ma mën a jàngat Eumeu Sène bi muy ñëw ñëw bi mu ñëwee dafa ñëwee ñëwinu koy jël séance te xamul ne boobu pour man moom moo toog ci couronne bi kon dama jàpp ne ci biir bëre bi dafa waroon a bàyyi sax Modou Lo bëre bi waaye Eumeu xam nga da di der liwaatoom du bu bu bu xawee diire tuuti day ñëw ñëw boobu mu ñëw nag mu di ko ëkku rek gis nga bu mu ñëwee dafa def benn xam nga. demi Félix Souf jóg rek jógaale ko ak droite bi xam nga combat ba jeex muy combat boo xam ne bés bu rëy woon di féliciter Modou encore une fois mais di encourager Eumeu Sène di wax ne moom tamit bokk na ci li mu wax dem ci bomba yi Eumeu Sène mbër yi nga xam ne war na seen roy ci hygiène de vie ndax yàgg na ci làmb masha Allah te ba tey saa yu sumee nga gis ne entraîné na Modou Lo nag moom pour man li mu am ni sérieux moo ko ko may di féliciter staff boobu ñoom Serigne Ndiaye Ibulaay ak ay papis ñoom ñëpp Malick Ngom tamit di ko féliciter ci acte ba mu def bés boobu ndax acte bu nganda nganda la def mais encore une fois daal di wax ne mhm. la Malick Gakou décanté situation yi ba rek mën a nangu ba guy gi mën a nangu avance rek rek waaw loolu day pour man warut a metti parce que li tax warut a metti Malick Gakou ku ne xam na ne réew mi nu ne muy Sénégal kilifa la fi am na fi kàddu itam te bokk na ci doomi réew mi nga xam ne nii pour man ñu ngi dox li tax Sénégal gën a développé ba pare mu dëkk fu ñuy wax Géejawaay Géejawaay googu defe naa fa la doore ba am fa ay cër ñu jox ko fa cër kon defe naa guy gi bu fa dëkkee itam ñu seq relation bu rafet su guy gi jàppee dara Malick Gakou war na ko ne bàyyi ko mu bàyyi ko defe naa pour man loolu ma war a am ci diggante bi rek ndax nag Ndeye Coumba Fall ëllëg yowmal xiyaam sax yàlla na yéex bu ñu fa demee yàlla na ñu am kuñ ñuy ruse parce que àddina ak waaw nit daal yàlla na nga am kuñ lay ruse waaw loolu sax moo tax na journal bi nga expliqué ne Malick Gakou moom moo jël décision

Marley Joula mi ngi ñëw ne maana daal mi ngi artu ki nga xam ne mooy nekkureel moom daal nee nam rek maanaam gisul defet victoire rek la gis ah waaw moo war a am parce que daa jóge ci defet digganteem ak booy mm-hmm. na ci ndam defe naa Falaye la mujj daan moom nekkureel mii mais gëj na bëree voilà kon Marley ndam mm-hmm. waaye itam ki mu ko séqal loolu lay gis et puis ah yi xam ne am na adversaire <laughs> te njool lay a bëree nag <laughs> waaw te ñi ko daan ci làmb du ñu ay cuune moom nee kuréel ñaar defet yi mu jot a am muy Sa Thiès ak Tyson 2 mhm. waaw Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoo di leen jox di daje suba incha allah balaa boobu may nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astane déjà vraiment chéri Khadija Dial di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ni moom mooy Grand Fall di nuyu ki nga xam ni mooy El Hadj Malick Tandine di turandoo Astane depuis koy nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye depuis États-Unis euh, papa yi Siteu maa xalaat xool li may xool si boppam moom <laughs> moo métti del xool caméra bi nuyu ki nga xam ni mooy Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie aussi maa ngi nuyu sofi Ndour ak euh, bébé Fa ak ki nga xam ne mooy tabar depuis France maa leen nuyu nuyu aussi Babacar di la remercier si teranga bi teranga bi bëri na lool <laughs> yaa ma rek yàggu maal bi nga xam ne daf may àbbu téléphone te duma ko delloo dima àbbu ay casque moom daa sonal na ma lool lool xam naa daa war gaaw am jabar comme ça mën a <laughs> nopp loolu moo am solo macha allah. non loolu am na solo ñoo ko bokk àddina amul solo parce que olof na ñu bokkute ñooy laxasoo goj ñun la yàlla boole fii ñu nekk fi di fi liggéey buy neex dañuy ànd buy naqar dañuy ànd parce que yàllaa ko dogal kon a ko rafetal mm. waaw loolu moom ma voilà que nettali dina am te comme li ma la waxoon sànq ci début bi rek man ñi may xamanteel ci daaru dunya dama ñaan yàlla relation boobu nekk relation bu nga xam ne yàlla kese moo koy lal mm. yaa ngi bu fee même ak fu ñu mën a xamante ak ci ñu mën a xamante man Babacar loolu laay dund te wax yàlla loolu laa gëm donte xaw nga am tuuti kii mais borom mbaax nga waaw waaw borom baax nga quoi waaw waaw waaw faal nga san man joom laa sant